summa turadduuna ilaa aalimi alxaybi wa shahaada fa yunabbi'ukum bimaa kuntum ta'maluun allahu akbar allahu akbar sami'a allahu liman hamidah rabbanaa